mbokk yi ñuy teewlu ci Sénégal 7 ñu ngi leen di nuyu te am mbégte euh, dellu soit ak yéen janook yéen ngir waxtaanee lu jëm ci benn xew-xew bu mag boo xam ne euh, dina am fii ak euh, benn semaine fii précisément muy màggal ki nga xam ne yoonu murit dinañu ko amal màggalub Daaru Moxti màggal googu nga xam ne bëri na muy symboliser ci yoonu murit loolee nag liñ nar a waxtaanee tey ak lépp lu aju euh, ci xew-xew bu mag boobu euh, dañ ci dalal nag ki nga xam ne mooy euh, Cheikh Oumar Bamba Diop nekk ci pôle communication bi moom itam nekk initiateur bu xam Thierno jot na xam Thierno jot na mel na ni bëri na suñu mag yi nga xam ne hmm. bëri nañu solo lool hmm. waaye njàngat bi nga xam ne war nañu ko def si ñoom hmm. daal dina desandi Euh, sëñ Cheikh ñu ngi lay ziar. jërëjëf euh, ñu ngi leen di delloo ziar di am mbégte ñëw fii ci senegal set bokk ci béréb yi nga xamante ne euh, sunu vitrine la ndax li ñu baaxle lépp fi lañ koy wane waaye li ñu naqar lu ci bari fii lañ koy waxee di ñaanal waa kër gi ñaan barkeb ki ñuy waxtaane sama borom def ko ci béréb bi ba lu ngeen ci yéene rek ñu am ci lu kawe njortu waaye di nuyu rek ak a ziar. sunu kilifa Cheikh Mountakha mi nga xamante ne mooy nekkal sëriñ bi ci liggéey bi waaye di ziare Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xamante ne mooy xalifa boroom Daarul Mouti. d'accord ñu jaajëfal la di la fay ci Sénégal 7 ñu tàmbalee rek. Euh, ci euh, bés boobu nga xam ne mooy màggalu Daaru Muxti mm. euh, bi lan la. lan mooy symbole Euh, bis boobu nag li muy euh, mandargaal mooy bis boo xamante ne le bien a eu le dessus sur le mal bis la boo xamante ne sama borom def cee gàcceel seytaane bis la boo xamante ne iblis dafa jógoon ànd ak ñoñam ne wa yuriduna u nuurallahi bi afwahihim li fii leeru lislaam dinaa ko fay am jëmm yu taxaw ni ko wa yaaballahu illaa an yutimma nuurahu walaw karihal kaafiruun moo mel ne àddina ba ko yàlla sosee ba léegi rek combat baax ak mbon mosu fee jóg ci cas de figure bii nag kii représenté mbaax ba faw mooy Cheikh Ahmad Bamba Xadim Rasulillah ak ñi nga xamante ne ñoom la bokkal liggéey bi te mu tànn leen waaye nag ki nga xamante ne mooy représenté mbon gi kii représenté cheytaan mooy France mm-hmm. mooy France mooy le colonisateur mm-hmm. bi nga xamante ne li ko taxoon a jóg dëgg-dëgg mooy fay leeru islam fii ci Sénégal mu mel ne nag Cheikh Ahmad Bamba xadimi rasulillah ci liggéey bu mag boobu nga xamante ne ci la demoon liggéeyal yàlla ci géej gi waaye it am aspect civique bu am solo muy nit la koo xamante ne tubaab bi dafa ñëw indaale assimilation ak acculturation sëriñ bi taxaw ci kanam moom fas yéene moom confirmer identité culturelle am waaye confirmer it confession ci biir identité culturelle ndax Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasulillah spécificité mooy euh, dafa def dichotomie entre arabité et islam hmm. nga xamante ne moom ba fi may wax yoon yow nii soo xoolee murid yi da ngay gis ne euh, race de musulman lañu boo xamante ne bu ñu jëfee day dëppoo ak sunna su yonent bi sallallahu alayhi wa waaye boo leen ne jàkk sam xel ci Afrique lay dem. Hmm. arabité ak euh, islam nekk lu wuute bien que dañuy nekk di ko confondre. arabité ak islaam mooy. <clears throat> aaday arab mm-hmm. ak islaam maanaam ça fait maanaam bi ñu épouser islaam loolu dañoo war waaye nag war a changer suñu ay euh, identité mm-hmm. di nuru nuru lu arab wala ñu loolu moom du islam mm-hmm. loolu culturation la loolu ak culturation la moo tax alquranul karim bu l'islam ñëwee ci ab béréb fekk fa loo xamante ne maaruuf la muy lu ñu xam loo xamante ne islam nangu na ko ma islam daf koy intégré moom la yàlla di wax ci alquran naan xudil afa waamur bil urfi waaye Cheikh dafa amoon mission boo xamante ne au delà de la confession c'est une mission culturelle ndax sëriñ bi dafa yàgg di xeexal der bu ñuul da nga dégg ca euh, bien avant la négritude mu a walay sa yujibu sawadul jismi safahatal fata wa suul fahmi la noirceur de la peau n'est en aucun cas gage de gage d'idiotie ou d'ignorance yëmut foofu dem na ba di wax ak nit ñi naan leen di décrire jamono bi fi nit ñi toll woon ba tax moom mu am mission boobu wa minhum man in raa nasraani yaxsibuhum min malaa'ika rahmaani nit ñi àgg nañ ci bu ñu gisee tubaab sax day mel na malaaka la ñu gis mm-hmm. mu ne leen walaa tadunnu bi annahum muluku bal innama kulluhum saxluku maanaam di wax ne ñii ngeen di yàpp ay malaaka du ñu dara ce sont des misérables ce sont des misérables dans ci contexte historique bi ci jamono boobu tuuti rek buñ delloo ci mbindum Victor Hugo dinañ fekk moom ci boppam mu bind décrire sa propre société comme des misérables loolu moo waral Cheikh Ahmad Bamba Khadimi Rasulullah di def dichotomie entre arabité et musulman loolu nag lu am solo la léegi nag bi mu demee ci liggéey bu mag boobu nga xamante ne ci la songo ak cheytaan ci la songo ak ñi nga xamante ne ñooy noonu islaam mm-hmm. ba sama borom defal ko ca ndam lu rëy yi nga xamante ne moom la ko ci defal ndax sëriñ bi tournant bi ëpp solo ci ak dundam mooy liggéeyu géej gi sababu xaybati an allaha an araada an an anaala minhu jaaha wa an akuna xaadiman fi dawmi wa an akuna shafian li xaw mi ci liggéey boobu ci la ko yàlla defale mooy ki nga xamante ne mooy ramm aw xeetam waaye mooy ki liggéeyal nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci lu sax ak fii ci sow sow sow sowu jant ba am ci résultat ba ne jaxaltu sayri foo ko xajjin wa jihaad fil ajri wal yunni wa fi kulli rachat yooyu yëpp di wane ne maanaam lépp lu mu am ci yàlla rek mi ngi ko jëlee ci tukki boobu waaye tukki boobu nag li muy mark dëgg-dëgg mooy victoire bi nga xamante ne moom Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasulillah moom la aw moom la am ci kaw kolon bi nga xamante ne yitteem moo doonoon faagaagal ko parce que bu ñu xoolee fi ñu ko yóbbu woon ci forêt boo xamante ne c'est une forêt tropicale mhm. boo xam bu fii mooy wax yow nii Gabon bokk na ci premier producteur de bois yi ci àdduna bi mhm. ndax forêt ya fa nekk na mu mel nga war a dellu koon cent ans ci ginnaaw bien avant les changements climatiques ban façon forêt moo fa nekkoon ñu wàcc fa un enfant wala boog un homme du Sahel koo xamante ne moom li mu xam ci taw mooy trois mois sur douze mm-hmm. yoo xamante ne taw bi sax c'est sporadique ñu yóbbu ko ci climat équatorial boo xamante ne day taw presque dix mois sur douze mm-hmm. ci forêt boo xam c'est une forêt touffue boo xamante ne dafa infesté d'insectes venimeux infecté de de de de reptile venimeux. Mm-hmm. ak ak ak boo xamante ne ca jamono booba soo reculer cent ans ci ginnaaw. Mm-hmm. loolu kon du woon lenn lu dul assassinat déguisé. rey Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasulullah loolu lañ bëggoon mais rey ko ñaar yoon mooy rey ko ci jëmmam. Mm-hmm. sa mort physique waaye sa mort spirituelle. parce que il eut lieu de l'interner au Gabon jusqu'à l'extinction des agissements causés par ses enseignements. kon liñ bëggoon mooy rey Cheikh Ahmad ci jëmm waaye rey ko ci am njàngaleem mhm. loolee moom la yàlla farut loolee moom la yàlla matalut bal yàlla kay dafa ànd ak Cheikh Ahmad Bamba xadim allahu yansuruni wal xalqu tatbauni fil baxri wa fil barri wal baxri za nafam bila ba tax mu am taxawaay ba mu am ci jamono boobu li muy metti métti fa la liggéey les performances littéraires yi nga xamante ne ba léegi day jommal le monde arabe mhm. fala jullee ci yonent bi xeeti salawaat yoo xamante ne siira yi mu ci jullee maanaam figure de style mu jullee ci yonent bi ba léegi kenn fekk ko ci kon Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasulillah euh, ci ni ko yàlla binde waaye ci pas-pasam ak yitteem ak gëm-gëmam ci yàlla ak yonent bi ak am yéene liggéeyal leen day koo xamante ne toujours day xam les sources de résistance di inverser la tendance loolu moo tax ñoom li ñu bëggoon amul te li ñu bëggoon am bi mu ñëwee nag ci yónnee nag woolu rakkam ji nga xamante ne mooy Cheikh Ibrahima Fati borom Daarul Muxti bu ñuy waxtaane tey muy koo xam ne le Cheikh la façonné à image ndax jëmm la joo xam ne bi mu amee benn at ñoo bokk wenn jur mm-hmm. bi mu amee benn at sëriñ bi mage na ko lu toll ci fukki at ak ñett borom Daarul Muxti mi ngi gane jamono en 1865 le jour euh, de la bataille de Paoskoto mm-hmm. bis boobu nga xamante ne coalisé musulman yi ci lañ dàq Pinet-Laprade rey ci tubaab yi lu bari ci bis boobu la Cheikh Ibrahim ganee jamono ci poroxaan euh, ci rëmu yi amoon ci diggante boobu ci politique diggante coalisé musulman yi ak ceddo yi ak colon yi ci lañ jógee poroxaan dem fi ñu dëkk bu ñu wax Jaabakunda foofu lañ ko ngéntee jox ko jox ko aw tur moom la sëriñ Moussa Ka di wax ca way wa naan euh, yor yoorub alxamis hmm, fukki fan ak juróom ci weeru gàmm yor yooru alxamis gaynde ga ñëw di yëmmu muy baat yoo xamante ne mooy baat yi ko topp ci ak dundam muy gàmmu dundal sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag gaynde ga ñëw di yëmmu mooy gaynde ga ñëw di rugir ba ni mu fi jógee képp ko mos a way rekk boole nga ko ak totem boobu nga xamante ne mooy gaynde di symboliser ak njàmbaar di symboliser euh, constance waaye di symboliser boolem li nga xamante ne ñun moom la ñu am ci ay valeur bi mu ñëwee nag wootu woolu borom daaru waxtu ca ndar Cheikh Issa Dieng la sëriñ bu yabal mu dawal ñetti fas yoo xamante ne yëpp tërëf nañu yi yi faatu ci yoon wi ca la ko woon ak mu ñëw daje ak moom ndar dajeeg le quinze Chaban fukki fan juróom ci weeru Chaban mm-hmm. di guddi goo xamante ne guddi gu ñu yàgg màggal la ci islaam waaw fiihaa yufraqu kullu amrin hakimin nisfu Chaban nisfu Chaban am na ñu bari ñoo xamante ne wax nañ ne guddi googu moo tax sama borom di wax mm-hmm. euh, ñu daje nag daje bu am solo mu doon mbar ko compte ndax damay wax ne borom dara moo suppléé woon un artisan suppléé woon un commerçant mais ki mu doon suppléé mooy ki nga xamante ne moo amoon mission tajjiidu sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam mooy yeesal sunna si yonent bi ancré ko ci sunu réew dëppale ko ak sunu sociologie ndax dafa bokk ci pédagogie suuf su nekk boo ñëwee nga xool ñoom na gën a yell ci nga jàngale leen sunna si yonent bi nga jàngale leen ko noonu loolu moo waral Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuulillah bi mu ñëwee waxuma la sax mbind mi mbind mi waaye danaan def ay tomb mm-hmm. maanaam tomb yoo xamante ne wax ju gàtt lay doon nga xamante ne mag mi nga xamante ne amul euh, instrument linguistique yi ko mën a may mu dem liiri Buxaari yi ak muslim mm-hmm. ñu tënkal ko ko ci ay tomb yu gàtt yoo xam day digg sunna te du ajoo muy dem ci téere yu mag yooyu voilà pédagogie noonu la noonu noonu noonu la euh, bi mu wooyee nag Cheikh Ibrahima Fati borom daaru moxti ba ñu dajee borom daaru daal di koy gaaral li nga xamante ne moom la bàyyi woon gannaaw daje bi nan la nan nan la tëddoon yaa ngi ne gannaaw euh, tukkib géej gi mm-hmm. ci la amee mm-hmm. naka la ndaje bi amee sëñ bi bi mu ñëwee ba dem Ndar mm-hmm. dafa woo ku ñu wax sëriñ Isaa Jenn bokkoon moom it ci ci mag ñi mag ñi toppoon sëriñ bi moom la yabal ne ko demal wol ma Ibrahima parce que borom daaru moxti bi sëriñ bii dem da ko xamal ne ko nekkal ak njaboot gi fexeel ba fu survie mën a jàppandee rek mhm. mën nga faa dem ak ñoom fexeel daal ba ñu am xam-xam nañu yaru maam Thierno fi ko sëriñ bi bàyyoon muy Mbàkke Baari mhm. ba mu fa nekkee ab diir bu gàtt ci la euh, commandant de cercle bu Dagana yable ci moom mhm. parce que dañoo jàppoon ne bu sëriñ bi demee lépp day fay bu sëriñ bi demee lépp yokk taal jàng yi yokk donga yi yokk njàng mi di gën a dox nit ñi di gën a bëgg Serigne Touba di gën di ñëw di jaayante ak yoonu Serigne Touba bi nga xamante ne moom la woote. ñu dem wax ko commandant cercle bu Dagana mu yónnee ci borom daar ab lettre ne ko su fekkente ne fekk naa la foofu maanaam dinaa la dinaa taal kër gi ci sa kaw. Mhm. mu ne ko taal kër gi moom maanaam mu ne ko déplacé wu moom mën naa nekk. ndax sëriñ bi neewoon nañu fu jàppandi rek ñu mën faa dundu waaye nag fii may wax ak yow nii moom li fekk nawet bi wàccut mm. mënuñoo dem fenn bu taal kër googu ngay wax nag boo ñëwee kon sama jëmm ngay jaar bala ngaa taal kër bi loolu di wane euh, fi ko sëriñ Tuubaa eggoon ak liggéey bi ñu ko joxoon fan da ko yeggoon parce que su fekkoon ne dafa wane woon fa preuve de faiblesse ba jumaa ba ba ndax ay nit mënuñoo dund nekk te amuñu ab dund mm-hmm. bu nawet bi wàccul ba ñu am ab dund doog a wu famille mën naa tasaare daara ji jafe ay jafe-jafe économique mën naa tasaara jaar ci. te foofu sax. Mhm. dëgguma la mën nañ fa am beneen lecture. Mhm. mooy euh, ndigal. Mhm. sens bi ndigal am ci yoonu murit. voilà voilà muy dem. sëñ Touba muy dem bàyyi na fa ndénkaane. ci maam Thierno. par rapport ak lieu de waaye mbiru nawet bi itam. voilà symboliser. ndigal solo si nga am. voilà moom la ndigal ndax xam nga boo sëriñ bi dafa dafa dafa dafa tënk sifaatu saadiqal murit. maanaam melokaanu murit. sifaatu saadixil muridi bi ixtisaar arbaatun nazamtuha xaw fa ixtiraar hmm. ba ci jiitu mooy as sidqu fi mahabbat cheikh abad mooy bëgg gi nga xamante ne moom ngay bëgg sëriñ bi hmm. et à travers sëriñ bi du jëmmi sëriñ bi waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon nga mu kenn ci yéen du mat lu dul damaa dem ba gënal ko ndeyam ak baayam gënal ko jëmmam hmm. kon da ngay am amour bu intact ci sëriñ boobu nga xamante ne mooy représenté yàlla ak yonent bi ci sa kanam ba ci topp mooy su mam saalu am li xay su warat mooy jëfe ndigal saa yoo ko déggee ba ca topp mooy euh, tarkul i'tiraad mooy dengi dengi dut ci ndigal li jóge ci sa sëriñ lim la wax lu mu jaxasoo jaxasoo ci sa bopp hmm. amoo droit nga di ci dute yow jëfeel rek parce que moom dalaa doy ba nga jox ko sa ruu xëy na mu taxaw foo xamante ne ma ngay gis loo loolu gis wala muy dégg loodul dégg hmm. wala mu ëpp la clairvoyance du loolu moo tax nga jox ko sa bopp kon ko amutoo droit jute ji lim lay lim lay wax la ba ca topp mooy salabul ixtiyaar mooy ab taalibi du am choix ab taalibi boo xamante ne dafa ñëw engagé wu ci yoonu yàlla parce que hmm. taalibi mooy koo xam ne day ñëw di sàkk ngërëmul yàlla di ko jaare fii ñu defar ak ruuxam muy euh, xadaf la xaman zakkaaha ba ak ruuxam sell maanaam ba texe texe googu sama borom di juñu ci xadaf la xaman zakkaaha hmm. maanaam kooku nag du am choix dañ koy tànnal ay yoon des voies et moyens yi nga xamante ne ci la ko sëriñ bi jaarale ba keroog ruuxam di set ba mën a am accéder à l' agrément de Dieu. yoonu mucc ñeenti ñeenti euh, ponk yi mooy les principes canoniques de Mouride. loolu nag bu fekkonte ne taa bi maye na ko dinañ la wan ne Cheikh Ibrahima Fadi borom Daaru Mooti. mooy kii nga xamante ne ci benn bu nekk ci loolu rek jëfam euh, bari na ci loo xam daf koy illustré. Mm-hmm. xam naa loolu moom day du ak temps bi ñu am du ko du ko du ko mate léegi bi ñu dajee nag mhm. Mhm. Euh, maam Cerno gaaral ko liggéey bi Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasulullah wax na ko ne ndax su fekkonte ne yow yaa dem mhm. man ma toog ndax dinaa ko mën nii ndax satisfaction bi nga xamante ne moom la am ci moom moom la ko Mauritanien yi di way naan rabbal muridin wa aqra al banin al udaba al adkiya tilka sinin rabbal muridin maanaam mooy ñi nga xamante ne ñoo ñëwoon jaayante parce que muri muridu euh, al muridin mooy muridullahi ñi nga xamante ne yàlla rek leen ñor ba tax ñu jaayante ak Sëriñ Tuubaa rabbal muridin mooy tarbiye na leen ba ñu am ngërëmul yàlla mooy li ñi nga xamante ne seen liggéey liggéeyam ci ñoom ci wàllu ruu la aju woon waaye ba aqara albanin nag mooy wane ne jàngal na njaboot gi mooy njabootuk deret gi ak njabootuk ruu gi hmm. mooy ñi waroon a ñi doon wut tamit un savoir livresque it maanaam jàngal nañu ba ñu nekk ay mufti al udabaawul askiyaaw mooy nit ñooñu nga xamante ne ay nite ay nite ay niti littérature lañu tilka sinin nag ci jamono yooyu nga xamante ne at yu métti la woon loolu day wane satisfecit bi nga xamante ne moom la Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul laa am ci borom daal Muxti bi ginnaaw bi nga xamante ne moom la jóge ci liggéey bi waaye yi ci mot bàyyi xel mooy euh, at yi mu ko def parce que euh, bi sëriñ bi jóge fii di dem di dem euh, ci tukki bi fekk boobu mu ngi Mbàkke Baari Jolof euh, sëriñ euh, borom daaru Moxti mi ngi toll woon ci ay at presque fanweer at da nga dégg waykat yi naan maam Cerno maam nu borom daaru moo njëkk dem Ndar booba sëriñ bi daf ko yónni ci gouverneur bu ko sëriñ bi yónnee ci gouverneur 30 ans laa wax ci jamono yooyu te bu fàtte ne sëñ bi woon na mhm. am na nit ñi àgg nañ foo xam ne ci ragal tubaab bu du gisee tubaab dañu mel ne ko gis malaaka parce que ñoo yey ndax boobu tubaab bi am na droit de vie et de mort sur ce sujet boo gisee ni mu mu def ak sàmbalaw ba faal def ko ak jéeri joor la def ko ak lat joor amoon na droit de vie et de mort ci kaw nit ñi ci lu dul mu joxe benn explication kon nit ñi amoon na mille raisons pour ragal ko kon lan moo tax maam Cheikh Ibrahima Fadi borom Daaru Mooti moom ragalut tubaab bi keroog bi ko sëriñ bi yabalee parce que keroog bi mu ñëwee waxtu sieste la ñëw hmm. bi muy ñëw dafa jóge tool ñëw sëriñ bi yabal ko duggul ci biir sax change yére yére yi mu demee woon tool moom lañ ko yabale ndar bi mu ñëwee ci euh, kër kër kër kër gouverneur waxtu sieste bi mu ñëwee ñam ci protocole bi. Mhm. ñu ne ko da nga ñuy jox lettre mu ne leen déedéet du ma leen ko jox ndax woon na ma sama loxo ak loxoom ba tey ndigal sëriñ bi bi mu ko yónnee dana ko sa sa loxo ak loxol kilifa la amul amul protocole. kër kër ji ci bunt gi loolu moo yee loolu moo yee gouverneur. Mhm. bi mu taxawee ci balcon bi seen leen. daane nañ ko bàyyi parce que liir na engagement ci charisme bi nga xamante ne moom la xale bi indaale ak donte li muy sol li mu sol ni mu doyee dee waaye yëg na engagement parce que xam na ne dëkk bi ñi fi nekk ëpp ko daraja foofu ñemewu ñemewu ñemewuñoo euh, braver protocole bi de cette manière. maanaam li ko tax a jóg ñor na ko. li ko tax a jóg ñor na ko. Mm-hmm. bi mu ñëwee euh, mu ne ko sama loxo ak sa loxo. Mm-hmm. waaye. ki fa nekkoon euh, di di di di interprète bi borom daaru ci yewwu gi ak ni ko sëriñ bi waajale ci xam-xam yi gën a sew ci langage corporel u gouverneur ci la comprendre ne ils sont en train de trahir son message parce que moom il est venu avec un message de paix te gis na ne à chaque fois que li muy wax bu ñu ko waxee gouverneur il rougit mu xam ne kon am ñu ngi war la muy wax waaye ci fulla ak fayda mu bàyyi leen fa génn demaat ci waaw daal demaat ci dëkk bi da wuti interprète boppam laajte ban ne ku ñuy wax Mbariane Thiaw mi ngi ci dëkk bi dégg na France bu dem jëli Mbariane Thiaw ànd ak moom ñëwaat ci gouverneur imagine lool tey jii jeune bu am 30 ans mhm. doon ab campagnard juddowul ci quatre communes yi di un sujet français corvéable à souhait mhm. jóge ci àll ba ñëw pale ñëw romb garde yi dem ba ci président Macky Sall di wax ak moom jàpp ne Macky déggut li muy wax mu bàyyi ko fa génnaat ci biti dem wuti waat interprète xooluma jooju yitte xooluma boobu jeexal complexe noonu la Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasulullah formé woon Cheikh Ibrahima Fadi borom Daaru Muxti ba mu am personnalité boo xam ne du fléchir devant quoi que ce soit benn si xeetu révolution voilà léegi nag façon nit boobu mooy nit bi Cheikh Ahmad Bamba bëgg mhm. looloo tax mu teg ko ci kanamu murid yi mu nekk le prototype du murid parfait wax naa la bi mu amee un an ci la ko sëriñ bi jëlal boppam kenn fekk ko ci moo ko jàngal lépp benn yoon la ko mos a yebal ci genn kilifa gu ñuy wax sëñ Mor Baraama ca Njàmbur boobu boobu mu war faa jàng xaliil Muxtasaru Cheikh Xalil bi muy dem poème yi mu composé pour nuyoo ko sëriñ bi mu jëm sëriñ bi xam na ni kii moom du du élève bu ordinaire ndax pointure littéraire way yi ak baxru yi mu ko wayee booba euh, sommité intellectuelle ci réew mi ñoom mënuñu woon a wees foofu te moom te moom daa ñëw di jàng waaw mm-hmm. ila cheikh hadha al waqt saydi jilihi salaamun faridun laa yubara bi mislihi salaamun kama miskun wa wardun wa anbarun ila cheikh ibrahima misbaha ahlihi maanaam cheikh ibrahima sëñ Mor Barama il était euh, bouche bée mm-hmm. ndax xale buy ñëw di jàng si di indi lu toll nii ci ay way hmm. dafa jaaxle mu ne ko wallahi law kuntu dalat min xuduudakum illa mamatiya man nit bi maqsuudi mooy mun ah sama élève bii day bu ma juumee ba sama loxo laal ko man hmm. foofu laay jaare yàqu noonu la ko Cheikh Ahmadou ba forme maa ngi lay wax ne la ci langage corporel ci la comprendre hmm. gouverneur mais bi muy génn ñibbi euh, interprète bi nga ko njëkkoon a booleel waroon koo teg ci aw yoon di ko réeral ndax message bi mu yor Serigne Touba da cee war a jot ndax il doit déférer à la convocation demain te ñoom dañ doon fenal Serigne bi di wax ne maanaam rebelle la di wax ne maanaam gouverneur bi faalewut seen autorité te boobu su fekkoonte ne tardé na ci rendez bi loolu da koy dëggal ñu di ko réerantal bëgg mu fanaan pour message am tardé waaye Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasulullah ci ni mu ko waajale woon ci xam-xam xam nga boo demee ci alxuraan da nga fekk yàlla naan wa alaamaatin wa bin najmi hum yahtadun ci ay mandarga ak ci biddiw yi ci la ñuy gindee keroog borom daal moo ci ilmu nujum ci la sukkandiku ba fekkaat Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Baari Jolof d'accord alors ci balaa ñuy ñëw ci euh, concept euh, xam Thierno jot na mhm. balaa ñu ñëw si màggal gi mhm. édition 2022 bi ci lu gaaw rek mhm. euh, bii maam Thierno di sanc daaru mel na ni bëri na ay péripéties ay métti yoo xam ne dajoon na ko ci mën nga ci ñëwaat waaw xam nga Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasulillah noonu mu waajale borom daaru ci xam-xam noonu la ko waajale ci liggéey kër gu Cheikh Ahmadou Bamba mos a dëkk maam Thierno moo ko sanc bi ñu jógee Mbàkke Kajoor fi nga xamante ne moo nekkoon seen kon familial di ñëw Mbàkke Bawol moo ko fa jiitu sancal ko kër ga bu ñu nekkee Mbàkke Bawol ba jóge fa war a sanc Daaru Salaam moo ko fa jiitu dem sanc Daaru Salaam lii ma lay wax lii lépp boobu fanweeri at matagut wala bu mate ci lay mhm. buñ nekkee Daaru Salaam ba war a sanc Touba moo ko jiitu sanc Touba ñu nekkee Touba ba war a dem Mbacke Baari Jolof mhm. moo ko jiitu Mbacke Baari Jolof sanc kër ga bi sëñ bi demee ci exil bi ginnaaw bi mu sañc fi ay kër foo mel ne ndax dafa daal di am problème mu dëkkuwaay mhm. ndax boobu ki hérite d'une personne hérite de ses ennemis noon yi tubaab yi nga xamante ne dañoo bëgg njàngalem sëriñ bi fay ceddo yi nga xamante ne dañoo yëg ne Serigne Touba menace la ci ñoom. Mm. parce que mi ngi phagocyté seen mbooloo yi parce que booba ceddo yu mag yi cour kuur kuur kuur kuur cour royale yi ay kàngam ñu ngi fay jóge di jéblu ji nekk ay murit mm-hmm. ñoom it loolu menace la ci ñoom ñoom ñëpp di xeex borom Darou ci ak doomu soxna yi nga xamante ne dañoo gis ne Cheikh Ahmad Bamba rayonnement bi ni mu gaawee ak mbir yi ni mu mel. Mm. ñoomit bu lii yàggee mën naa tasaare seen kër yi. loolu lépp nekk ay hostilité yoo xamante ne day tegu ci kaw borom moo Muxti waaye comme dañ koo waajaloon nag am waaj waajtaay mu dëgër moo tax mu war a mu mën a nekk en face de tout ça ba pare lépp di continuer rayonné bi sëriñ bi demee ci géej gi mu am problème mu dëkkuwaay ba ni mu jógee Mbàkke Bari Jolof ci injection bi ma la waxoon léegi ci commandant cercle de Dagana ñibbisiwaat Bawol gi mu dëkk bi mu ñëwee nit ñi booba ku bokk ak sëriñ Tubaa sax wala ku nekk li nga li nga séq ak sëriñ bi da nga koy nëbbu parce que bëggoo lu naqari tubaab bi waaye maam Thierno ca taxawaay ba mu boole njabootu sëriñ bi ak dongay sëriñ bi ak ñu yaakaar sëriñ bi fas yéene moom incha allah maanaam téye leen ci anam ba gën a rafet balaa ba Cheikh mat Bamba ba am na tawat ju mos a dugg ci famille bi am ci ñoo xamante ne ci lañ fi wàññikoo Cheikh Mouhamadul Jadaali sëriñ Mouhamadou Lamine miy jël waaye keroog lañ wax ne keroog la mos a jooy waaye bi mu tàllalee loxo yàlla di ko ñaan dina ko bugguma mukk Sëriñ Tuubaa del si jamono ma di ko laaxaan njabootam ki maanaam mu ñëw ma koy annoncé diw faatu na diw faatu na hmm. loolu moom yàlla dimbali ma ci léegi yàlla bu fekkente ne mënoo bañ a jël dama bëgg booy jël nga jël sama ndey wala nga jël sama doomi bopp yi waaye njabootu Sëriñ Tuubaa bu sëriñ bi del si mukk ma di ko lay dara xanaa bëgg foofu la mën a yem fonk sa mission foofu la mën a yem hmm. noonu la taxawee fekk sañ ci na daarul ci diggante boobu mu formé fi quatre-vingt-quatre cheikh yoo xamante ne maanaam chaque mois dina defar góor yàlla ba mu am ngërëmul yàlla mu samp ko ci bërëb ngërëm woote sëñ Tuubaa bi dara bañ ko yàq d'accord maanaam nag bii demee nag ba sëriñ bi delsi bi sëriñ bi delsee euh, ba fekk ko daarul ma naan ginnaaw daarul ma naan fa amee jafe-jafe ak tubaab yi ñu yóbbu ko internet waat ko ndax la jolof ci yéen jolof mhm. foofu it borom daaru moo fa jiitu sancaat kër ga bi ñu demee nag ba indi ko njaareem nag fekk borom daaru booba mi ngi jëm mag boolem ñi ngay dégg ñëpp am nañ ay kër waaye moom musta am kër sa vie ma exclusivement dédiée à Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasulillah en 1912 nag ke la sëriñ ba yabal ku ñu wax sëriñ Hamsatu Jaxate mooy ni yaay sëriñ Saalo ak sëriñ Abdou laxaat di doomi sëriñ Moodu Asta Jaxate di ko baax bind ko ab lettre mu fekk borom daaru Mbàkke Kajoor parce que boobu li taxoon mu nekk Mbàkke Kajoor mooy dafa am seen rakki bàyyi ku ñuy wax sëñ Mbàkke Kajoor sëñ Mbàkke Ibra dafa jëmoon mag sëriñ bi yabal maam Thierno pour mu dem taxaw maanaam bañ koo bàyyi mu dem dëkk ak moom pour mën koo taxaw ginnaaw ba nga xamante ne nag jóge na fi ci la ko sëñ bi yónnee lettre bind ca euh, baadal basmala wa ma yaliqu min attaxiyaati almubashirat faqad udina laka fi binaai tilka almadinati wa fi lxafri wasmuha daarul mawti salaamu salaamun aleykum yubashirukum haysu kuntum loolu mooy décret bi nga xamante ne moo créé Darou Mouhty d'accord xamal ko it ne ko boo jógee Mbàkke Kajoor di jàng alquran ba ak si béréb sàngam fu mu la fekk rek foofaay béréb waaye sama borom defal ko ci tawféex joo xamante ne Darou Mouhty dafa nekk ci équidistance u les anciens les anciens royaumes du Sénégal mun Bawol wax na ci moom lu bokk mun te wax na ci moom la bokk Kajoor mënta wax ne ci moom la bokk loolu di bokk ci Sëriñ Tuubaa ni mu tenir ci autonomie parce que li mu indi dafa yees ci xeli nit ñi te euh, nit par essence dafa ragal lu yees kon li nga indi te bëgg ko expérimenter da ngay fexe ba am sa bu bopp mooy mën nga mën koo doxale na nga ko bëgge te doo am benn benn benn austérité d'accord muy béréb boo xamante ne zone bu aride la woon zone boo xamante ne ndox jafe woon na fa climat ba neexul dara neexul waaye dëkk boo xamante ne ñoo ngi ko créé en 1912 une seule fois centenaire mu nekk la deuxième ville religieuse du Sénégal superficiellement et démographiquement avant l'acte 3 de la décentralisation mu nekkoon deuxième communauté rurale bi gën a rëy ci Sénégal ginnaaw Ourossogui loolu day war a nekkoon Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasulillah ki mu formé woon di Cheikh Ibrahima Fati borom Daaru Mooti mat na li mu doon ndax Touba nekk na moom it ci benn yoon centenaire deuxième capital du Sénégal ci démographie ak économie Daaru Mooti nekk deuxième capitale religieuse du Sénégal laa bu tubaa jàllee mooy dëkku diine bi gën a rëy ci senegal ci mbooloo ak ci superficie loolu nag day wane ne Cheikh Ahmad Bamba lim jàngal maam Thierno dégg na ko. moo tax dañuy fekk sëñ Mat Jaw Paxa. di kenn ci eh, mag ñi. ñu ko daan wooye sultaanu aarifin moom lañ daan wax sultaanu aarifin dafa wax ne daarun nudifat ilal mu'ti ka jannaati fil urdi wa tuuli wa wa naati daaru ida nazalat ahlul ilahi biha naaloo munaahum wa naaloo baxda minnaati waaye li ci am solo mooy ci kaw lu njëkk li maanaam day loué daar Musti ci environnement bi naka la naka la dëkk bi mel assainissement bi waaye nag ci deuxième xab yi ci way bi day loué les qualités spirituelles de Daaru Musti te suuf la soo xamante ne ku fa wàcc ak càkkutéef goo am ci yàlla soo góorgóorlu rek mën nga ko am d' accord xam naa ne xam naa ne topp ko <laughs> euh, xeetu euh, géej la. Mhm. ndax du neex a du mhm. neex a jeexal. Mhm. ndax ñu ngi may signaler ne temps bi pratiquement jeex na. ah mais dañuy ñëw. Euh. dañuy ñëw waxtaan bi du kii de. nii la nii la <laughs> généralement nii lay tëddee. bànneex la boo xam ne. saa soo siy waxtaan rek. du jeex. jërëjëf te kenn du ci doyal. jërëjëf. ñu ñëw rek ci li nga xam ne mooy ci lu gaaw rek. muy xam Thierno jot na. Euh, ni ma ko waxee si ndoxteelu kàddu yi. Mhm. ne mel na ni bëri na ay mag yoo xam ne. Mhm. am nañu leen. Mhm. ñu nekk ay référence nekk ay richesse yoo xam ne dese nañu leen xam. na jot na lan la ëmb. jërëjëf jërëjëf euh, monsieur Coulibaly. may nuyu ak a imaam Malick Dramé. di doomu soxna ju baax. bokk ci tarixatu yi waaye pour wane leen rek. taxawaayam ci réew mi ak ni nit ñi war a fonke li ñu am mm-hmm. moom moo def yitte ci ñuy waxtaane Cheikh Ibrahima Fati borom Daaru Moot ci Sénégal set loolu nag mooy Sénégal gi ñu bëgg mm-hmm. mooy Sénégal goo xamante ne li ñu baaxle tout le monde se l'approprie mm-hmm. li ñu baaxle tout le monde doit se l'approprier d'où euh, le concept xam Thierno jot na ndax Cheikh Ibrahima Fati borom Daaru Mooti day jëmm joo xamante ne buñ demoon tey jii sur le plan civique li nga xam mooy taxawaay yi nga xamante ne moom la am ci wàllu civisme dafa war a tax sénégalais yi xam ko ndax ñun imposé nañu Jules Ferry imposé nañu euh, nuñ koy waxee pon Pompidou euh, mm-hmm. ak Ponty te xamalul ñu kan mooy euh, Jules Ferry mooy ki nga xamante ne moo moo moo légiféré les travaux ci nit ñu ñuul ñi ñu di ko tudde ay mbedd fii ci ndakaar te Cheikh Ibrahima Fati borom Daaru Muxti amu fi mbedd mhm. Cheikh Ibrahima borom Daaru Muxti sur le plan civique laa bëgg a ñëw bi nga xamante ne sëriñ bi jóge na fi maanaam ab dund jafe dafa fexe ba am li ñuy wax sàq sàqum ñett mhm. bi mu amee sàqum ñett ci dugub ndax ne bu soobee yàlla bu fekkente ne liggéey mooy may dund mhm. man dut ma ko ñàkk ci sàqum ñett moomu la jóge ba ñu xëy les autorités françaises takkal ko Euh, l'ordre du mérite agricole dem ba nga xamante ne am na at moo xam ne Sénégal amuñu jiw ci maam Thierno moom la euh, état français yab la yabal pour menn maam Thierno fournir semence tout le Sénégal ñi nga xamante ne dañoo ñëwoon di jël si jiw ku ñëw maam Thierno da lay wax ne la waxal li ngay doy li lay doy ma lebal la ko lebal réew mépp jiwu bi ñu demee ba waxtu fay jot mu ne damaa xam ne pour wane efficience bi nga xamante ne moom laa moon su ma ci tuddoon ak may danga gis ko jël ba jël lum soxlawul te it maanaam du am du am yitte ci liggéey ko ndax am am daf ko yomb moo tax ma tudde ko bor waaye man du ma fayantoog ñoom innama nutimukum li wajhi llah laa nuriidu minkum jazaa'an wala shukura damay def jëmm yàlla rek tax ma di ko def loolu euh, liggéey ba dajale lu toll noonu ci ay richesse mm-hmm. mën koo jox sa réew ngir jëmm yàlla loolu lu ñu war a jàngal sunu gone yi ci éducation civique la parce que civisme du dara lu dul nit ki tàmbalee ci jëmmam defar ko ba moom dutu mën a présenter menace ci dara waaye njariñ lay doon ci àdduna bépp su su fa àggee nag day accéder à l'universalité comme ni ko sama xarit Pape Djibril Fall di waxee su fa nit ki àggee nag nekkatul ku ñuy tëj ci benn cocon spirituel familial non non non mais kooku patrimoine national lay doon. day am ouverture. patrimoine national lay doon. dem na it ba administration pénitentiaire national euh, am problème dund ci kaso yi ba tey ci moom lañ ñëwaat mu jox leen ab dund nga gis ñi mu tàmbalee de zéro à héros njaarale ko ci njàngaleem Cheikh Ahmad Bamba Xadim Rasulullah ndax seriñ bi moo nekk wa fi zar'i ruuxul xalqi in kunta aqilan wa fihi imaadu dini lil xorri wal abdi na nga bay ndax bay day garantir autonomie te sëriñ Tuubaa toujours autonomie daf koy yitteel parce que nit ku la sañal ku la la mënal sañal la boo gisee yoonu murit ba fii may wax ak yow nii maanaam autonomie bi ñu am ci wàllu économie loolu mooy njàngaleem Serigne Touba parce que ku la financé da jox doctrine kenn du la financé xaalis mbay bàyyi la nga dem. Mhm. bu la joxee xaalis da lay imposer doctrine imposer la courant de pensée bu dee tubaab yi dañ lay jox courant de pensée bu dee ci wàllu diine dañ lay jox doctrine. Mhm. loolu moo tax Cheikh Ahmadou Bamba il tenait à l'autonomie de la communauté. loolu Cheikh Ibrahima Fati def ci. ay jéego yu am solo noonu la mel ci ni mu sañc ay dëkk noonu la mel ci ni mu taxawoo ni mu taxawoo réew mi ci fànn yëpp kooku nag yaakaar naa xam ko jot na sëkk ndax dañoo nekk ci eh, eh, époque boo xam ne jeunesse bi dafa nekk ci quête de référence di d'idole ñu war leen delloo ci nationalisme war leen a delloo ci li ñu am ci la ci gën a gànjare te loolu gisuma ku ci gën a nekk ci pole position Cheikh Ibrahima Fati borom Darou Mouhty ndax dayo bi mu am ci xam-xam dayo bi mu am ci xam-xam waaye fonk kilifaam borom Tuubaa moo tax moom bindut il n'a écrit que très rare fois bàyyiwul benn téere mais ay téeram nag mooy jëmm yi nga xamante ne ñoom la formé ñi nga xamante ne ñoo njëkk wutu Cheikh Cheikh Ahmad Bamba Cheikh Mouhamadul Moustapha moo ko jàngal Serigne Fallou moo ko jàngal sëriñ Mor Binta Serigne Makhtar Binta moo ko jàngal moo jàngal sëñ Masamba moo jàngal sëñ Cheikh Coro sëñ Balla Coro sëñ Cheikh Afsa euh, kàngam yoonu murid yëpp duñ ëpp moo leen jàngal moo tax da ngay gis Serigne Fallou pour xam pointure borom Darou Mouhty ci wàllu xam-xam da ngay dellu ci ay dongam nga jël ku mel ne Cheikh Mouhamad Fadal mu ne ko ataytu ilal mi'ta'i fi daarihi l mu'ti li yushkiya shakwal qabdi minni bil basti xamidul xisaali saabitul jësi umma xaliifun nada fi xaalil qasd wal qaxti boo euh, bayit woowu ñi nga xamante ne xam nañu awrut ak bayaan xam na ne ki ko wax ko euh, euh, xaw tuut mu nekk nawle abi abi abinoise ci ci ci ci wàllu ci wàllu ci wàllu ci wàllu littérature arab loolu nag day firndeel ku mel noonu nag oustaz jot na réew mi xam ko jot na réew mi dem jariñoo ko ndax alxuraan day wax naan fax susil xasas laallahum yatafakkarun maanaam defal rési wu ñi fi jaaroon ngir ñooñ tey ñi mën cee jël yóbbal yu jagal seen tey jagal seen ëllëg kon daal xam Cerno jot na loolu nag euh, weer wi mooy sunu occasion pour ñu porte communication ba ànd ak waa Daaru Muxti gépp ak jeunesse mouride bépp ak ci jeunesse musulmane bi yëpp ñëpp ñu ànd fas yéene tirer leçon yi nga xam ne moom la ñu war a jële ci jund ci ci dund nit ku am solo kook nga xam ne mooy Cheikh Ibrahima Fati borom Daaru Muxti. d'accord euh, màggal gi nag. Mhm. ci édition 2022 mhm. le 19 incha allah. organisation bi waajtaay yeeg magal gi nag moom ni muy demee mooy murid yi ñoo koy def waa kër Cheikh Ibrahima Fati borom Daaru Mati moo koy def seulement que ren dafa am nag benn suubu am solo bu ci am mooy xalifa bi Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikh Ibrahim mi nga xamante ne moo fi nekkal borom Daaru Mati dafa bëgg rénover jumaa ji rénovation jumaa ji nag liggéey bi ñu ngi ko dénk Africa Bloom Corporate bu suñu frère Mouhamad Nazir Samb Euh, euh, Mouhamadou euh, Kara Samb di di di coordonné liggéey bi waaye nag muy jumaa joo xamante ne murid waa kër Cheikh Ahmad Bamba waa kër ba Daaru Muxti ñoo ko liggéeyoon en 1966 lañ ko tàmbali ba julli ko en 1970 1987 boobu ba léegi nag ci ni dëkk bi yokkoo ñu di ko yokk ak di ko dëppale ak jamono dafa yëpp ay infrastructure de dernière génération fi mu toll nag ci liggéey boobu lañ nekk mooy euh, feuille de route màggal gi. dëgg la ndax borom daa waxtu bi mu fi nekkee nit la woon koo xamante ne ku amoon extrémisme ci ci ci diine la. daraan wax ne sama jàkka kenn du fi dugg te jàppoo xam nga nit day dem ba lislaam defal ko ak woyefal ci mu bañ a jàpp. ndax booba dañ daan dem ba kër mën dumbi xëri di fa jëli ndox. nu am ndox jafe lool maanaam nit daana tëdd ci poojum ndeyam di jaam wat dama mar. damaa mar damaa mar ba faatu te taxut borom daaru di woyefal jàpp bëgg nit ñi def effort di jëli am ndox fu mu mën di nekk di ko ngir seen diine yéwén dund na fi juróom-ñetti yoo xam ne ñaari yoon la mos a tiim moom borom daaru mooti hmm. ca jamono yooyu loolu day wane maanaam li nga xamante ne noonu la fonk woon islaam jàkkaam ja bi muy dund moom rek moo nekkoon zeng ci daaru mooti benn béré am mënoon naa décimer daaru mooti hmm. ba koo xam ne nag ak dundam noonu noonu noonu la mel ci diine amul jenn jumaa joo xamante ne jomb na ko moo tax jumaa jii ñu koy liggéeyal seize mille mètres la bokk na ci jumaa yi gën a mag ci Sénégal hmm. ren dañ ko bëgg rénover nag ci anam ba mu gën a jégee dayo mu gën a ndax lool noonu na ko islaam bëggee islaam dafa bëgg jumaa ji nga xamante mooy néegu bi yàlla dëkk bu mu nekk moo fay gën moo fay gën a rafet ndax mooy représenté seen gëm-gëm te gëm-gëm bi mooy yewenal fii mooy yewenal fële kon daal ñu ci woon ak waa Darou Mouhty yëpp màggal gi daal ren ku ñëw na nga xam ne fekk nga Cerno am yitte mhm. yitte yi Cerno nag mooy jumaa ji bu yàlla bi wa annal masaajida lillaahi falaa tad'uu ma'a llaahi ahadan mhm. na ci kenn ku nekk def la mu man ngir ñu mën koo réaliser bu dul dara it ñu delloo ko njukkal jëmm ju mag ji nga xamante ne il a sacrifié toute sa vie maanaam pour la survie de l'humanité pour l'épanouissement de de de de l'humanité dans leur fois mhm. et la liberté mooy am gëm-gëm gu wér waaye nag am liberté mën koo doxal nañ ko bëggee bokk nañ ci ay particularité am Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul defaloon na ko ijaaza muy joxe awraat yëpp tarixa yëpp la doon joxe loolu moo waral jumaa ji hëb la hëb la ci monde musulman am na fa benn tribune bu ñuy wooye Al Wafa courant de pensée politique yi nga dégg ci Sénégal ñëpp toog nañ fa leeral lan muy seen gëm-gëm xaqiida yi nga xamante ne moo nekk ci islaam <coughs> tarixa yi ku nekk defal nañ la tribune bis nga ñëw leeral défendre ses positions ci l'islam Mhm. loolu nag kon day wane ne Daaru Muxti trait d'union la ci diine ji jumaay Daaru Muxti trait d'union la ci biir jullit ñi kon du yëfi murit yi kese du yëfi waa Daaru Muxti waaye yëfi jullit ñëpp la ñu ngi ciy woo ñëpp innama yaamuru masajid allah man amana billahi wal yawmil axir wa aqama salata wa ata zaka wa lam yaxsha illa allah fa asa ulaika an yakunu min al muhtadin mhm. di jaajëfal la kon bu baax. jërëjëf kontaan nañu kontaan nañu jërëjëf. bàyyi la rek nga sa dernier mot. waaw moom daal ñu ngi leen sant bu baax. ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di sant encore une fois imam euh, Malick Dramé. bu Andulay Ahlulahi. Euh, Alaaji Malick Dramé. Mhm. waaw moom xam nga comme ni ma la ko waxee léegi. Mhm. Euh, moom mooy façon sénégalais bi ñu bëgg. mooy façon sénégalais bi nga xamante ne fépp fu seet lu baax rek daf koy magnifier. Mhm. te loolu mooy tax ñu am li ñu bëgg ndax c'est dans diversité. que sort les richesses summa kuli min kulli samaraat bi ko yàlla waxee ca yamba wo ci sooratu naxli la aaya ba daanoo mooy fii shifaa ulinaas mooy diversité bi moo jur li nga xamante ne mooy doon garabu humanité moom nag ku comprendre loolu la def ko ci euh, doxinam yëpp di mu mel ak sëriñ Abdou Mbacke moom sa Baye Cheikh Khady di xalifa sëñ Cheikh Khady mi nga xamante ne doom la ci borom Daaru Muxti noonu la mel ak fenn fu nekk ci réew mi loolu nag mooy la ñu bëgg ci réew mi ñuy ñaanal kër gi Sénégal seet sama borom def fi jàmm mm-hmm. yëkkati leen ba seen yéene ci liggéeyal senegal mm-hmm. mu jox leen les moyens de vos ambitions parce que ñu mel ne yéen rek ñooy tax li suulu tey gànjar mën a génn ñëw ci penc mi mm-hmm. ñëpp jariñoo ko kon daal bis baa ngoog Daaru Muxti le 19 mars 2022 ñu ngi woo ñëpp kuy ñëwit nga góor góorlu ba boo ñëwee nga jéem a xam dara ci borom Daaru Muxti te nga jéem a roy ci benn ci ay jikkoom yóbbaloo ko soo ko defee sa fii dina jag sa fële dina jag liggéey bu bu mag ba nag maa nga fa di leen xaar ku ñëw it na nga ci jéem a bàyyi dara jërë ngeen jëf <laughs> d'accord kon bu baax euh, ki nga xam ne mooy Cheikh Omar Bamba Diop mm-hmm. euh, bokk ci pôle communication bu li nga xam ne mooy organisation Magalu Daaru édition 2022 bi nekk itam initiateur bi nga xam ne Euh, moo taxawal euh, xam Thierno jot na ngir rek xam œuvre bi œuvre yi ki nga xam ne moom mooy maam Thierno Birahim euh, xam taxawaayam xam ngëm-ngëmam ci Serigne Touba waaye itam li nga xam ne moom la doon doxee di ndigal bawoo ci sëriñ bu mag bi ñu jaajëfal leen kon bu baax di def un clin Euh, ci ñi nga xam ne mooy suñu mbokku laay ñi nga xam ne ci bésub nifsu Chaban. wallaay wallaay euh, mba waa kër euh, maam Ibrahima lay Seyni moom itam dinañu amal xew-xew bu màgg ci guddi gi. macha allah ah, waa Touba itam Daaru Muxti ñoom itam war a amal. Euh, màggal gu euh, màggal gu ren dafa daje it ak màggalu sëriñ Saliou Fall moom mhm. rek Cheikh Ibrahima Fall mhm. ak sëñ Modou Faa Jamañang mi nga xamante ne mooy juróom-ñaareel bi nit bi nga xamante ne moo jox boppam mhm. Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasulullah bis la daal bam dina ala doomi insha allah wax nga dégg wax nga dégg mu doon bés boo xam ne pratiquement jullit yëpp nañ ko dañ koy màggal pratiquement nekk ci weer wu sell itam di bàyyi xel également suñu mbokku chrétiens yi nga xam ne ñu ngi si seen carême bi di leen ñaanal ñu jeexal ak jàmm di leen jaajëfal yéen ñëpp yéen ñi nga xam ne nañ bàyyi xel Sénégal set di leen euh, dig daje beneen yoon euh, ci beneen rendez ci yeneeni waxtaan yoo xam ne du daf lenn lu dul amal njëriñ askan bi jëmale leen kanam jërë ngeen jëf ba beneen